kay ma jaay la ndambe boo koy lekk di bonde ah teg sa tànk du commentaire. non kii ngay mel ni ku njàmbalee. bismillah ma ngi ba da ngeen da ngeen yàq rab bi quoi yéen da ngeen i o o o a a a a mais yéen même du ko jàng abata sax ba lañ waay ay ma tudd ma nga ma jamal dégg na samay conseil de waxoon naa ko ñebel ni mu koy travaillé léegi man dama bëgg nga décortiquer ma ndambe ah tey nga xam ndax ñebeloog laa wala ma ñebeloog hmm. ñebelu si quoi mhm. xam nga ñebe da am ñebe Fuuta am ñebe Rissa Tool ñebe Dagana ñebe Lombul cuguñ cok cok maat gel seere ba jokkul jawriñ kaana ma ni nga nga dégg nag. ñeme buur mooy ñeme ju pataaji ji mel ni kurpeñ xam nga ñebe dafa am benn affaire bu nekk bu ñuy wax zircon. zir zircon moo tax ñebe di funki am ñebe ju sew dégg nga loolu boobu ay wax dafay war a leer ñebe doom bu ne day fayu nag foog ngay xam ko parce que ñebe boo defee sam ndox sotti ci ñebe ji def ci nuuli ji da ngay dégg ñebe ji daw naan pututututututut

moo tax mu génne dose bi. su ma la toqee du ma eggali sama texte bi bàyyi ma jëlal ko nii ma eh eh. man na bàyyi bàyyi ma xamul dégg ba ah ba li ma dagg bàyyi su ma rab nga may dagg. munoo loolu nga defut nag da ngay dindi loxo ci ñebe ah ji waaye yoo. ah Jackson bàyyi. Jamba tey de dama sama client yi. dañ maa woo woo woo ba sonn ma jambal ana nambel ma jambal ana nambel. mu ngi nii loo man di def na ko bàyyi nga dem jëndali ma ndambe war naa am ndambe de ndambe loo xam ne que kenn nekk naan ma ndambe léegi ma jëmbal nàngam no bëlem parce que tàmmal nañu ko ba pare no bëlem waaw saa lanti la ko jox ko def lanti hmm? lanti naan ndambe def wax na fi lu ay ndambe ay kii dafa dëgër dëgër fi yow comme gaynde ñu sa at ñëpp ma jëmbal li lu ndambe kii yow lii <laughs> sëriñ kii lantin la jox. Hmm? ndambe amul. je lantin nga xam nga ndambe daa am moo tax sentir ma fer ji lii kay lantin moo tax may sentir përëm. ñu a jëlee mu roog lekk <laughs> moo tax yow mburum yëpp përëm ma lekk ma fer per loolu suba. yaa defal la tout. defal la tout nga teel a jóg nga dem fa ngay jëlee ndambe dafa sori. non bel. nag sa hmm? xaar ma jël bagage yi ko. sa café. Hmm. fi nga ci war nañu ko wax. da nga sa àdduna nga suukal ko di ko xoolaat yaa may dégg ki joxoon ko lan nga lekk ko naan ndambe la li lan la bàyyi bàyyi dugal lu ci xoolal raser la lépp yow yow xoolal day sàq mi rek yow sa bëriwul sàq mi rek bu ma ah am ma ko wax ah dox na moroom lan ci la ilaha illallah lan bi jéeg a gën a ngand maa ngi dëj li xanaa lan tàmbaaji la ah? ah moo tax boobu lépp problème maa ngi dëj xanaa sogo dalaa jóge sogo dalaa Baay Baay. kon dina ci lànd ji kon dina ci lànd góor bi góor góor